lan gars yi mauvaise nouvelle encore une fois pour Sénégal c'est tëtëtëtët sunu attaquant ba blessé na après Nampalys Mendy maa ngi ciy ñëw nan la naka la salaam gars yi naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen san équipe nationale Sénégal Coupe d'Afrique bi di ñëw daanaka un mois sax desatu ci Nampalys Mendy blessé na te kenn xamul na dina ñëw ou pas Bouna Sarr blessé na tey kan moo blessé waat muy kookee di Boulaye Dia sunu attaquant pointe bi nga xam ne ndeysaan oh là là tey match Milan Salernitana dafa génn tey teel a génn blessure boo xam ne lu na raglu na oh là ay waa ñun fan lañ jëm ak sunuy blessure gars yi nouvelle bi naqari na de ah baax na yàlla lañ ñëwaat ak jàmm ak salaam gars na ko ñëpp ñaanal mu ñëwaat ak jàmm ak salaam balaa Coupe d'Afrique man ngeen ñaanal ma trop waaw tax sànq ba tey gisoo leen samay vidéo mooy loolu ñaanal leen ma bu baax a baax a baax mais quand même kookee di Boulaye Dia yàlla na ko yàlla may wér yaram mu ñëwaat ci jàmm ak salaam mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu léegi nag gaay blessure yi moom faaw ñu jóg ci lii moom yéeme na te ngeen xamatul fan la jëm mu ngay dem rek te yàlla na fi yam nag yàlla na fi yam ñuy jot a blessé ñu wér ci jàmm ak salaam Bouna Sarr mënatul ñëw nag saison bi jeex na mais Nampalys Mendy nañ bu Boulaye Dia nañ espérer xool nu muy demee nan lak naka la gars yi doon ma nekkoon vidéo bi den wax ne ne vidéo saajo Mané ak yooyu ak yëpp mu ngi ñëw ci kanam ñu ngi leen dugalal lépp ci facette bi ngeen xam ak ñun ak ñoom seen jàmm ci yéen gars yi ba ci yeneen vidéo merci bés bu rëy bés bu kenn warta wuute mu doon final zone 14 nawetaan fii ci Mbaaw ak alentour bi mu doon match yu nar a neex nar a yëngu lu wax képp koo xam ne dëkk nga ci dëkk bi moo xam nga nekk Mbaaw Kër Mbay Fall kàmb na nga ñëw assister loolu nag feetu football la pour jeune Kër Mbay Fall yi mën a jëm ca kanam mu doon match yoo xam ne nii ni ne ko limal benn par benn ñi war a daje moo xam mooy cadet bi ba ci senior bi jiitale ko cadet bi mu war a dox diggante match kookee di AS Djibo moom mi nga xam ne ay gone mën na nañoo football am nañ fit osé nañ di leen seetaan sa xol day sedd war a dajante keneen ki nga xam ne moom it ca wet googu mën naa ne muy Cité Saba ñoom it dañuy employé football am nañ fit osé nañ tey dañuy teg bal bi mu doon loo xam ne nii nar na neex nar na yëngu kon nag à ne pas dem ci finaal senior bi kookee di dal jàmm moom mi nga xam ne moom lañ dàkkantele miin final xam final waaye tàmm jël final war a dajante kookee di gëstu moom mi nga xam ne bu dee football teg tiki taka am njaay joxal jóob moom lañ joxoñ jaar baaraamu tuuma kon nag match la boo xam ne nii dina dox diggante expérience ak jeu match bi nar na neex nar na yëngu kon nag à ne bis boobu ku ma fa dëgg ne ma master Fassane sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan na avec mon bro. walaay ndeysaan. saa yi gën la quoi. ñoo far. avec mon grand Diouf. mais bëgg nañ ci waaw. mais Bamada. lan nga wax. wallaay ndeysaan. <laughs> wallaay ndeysaan allah merci. yàlla baax na bii laa soxla ah. daal la nga koy jox. bëgg kuy am. rek لعلك باخع نفسك إذا عذابهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا ولله قوم ما اتخذوا leen yàlla def ay seen waa. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay nañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. yaatu macha allah. yàlla leen yàlla def ay seen waa. def leen ay bëccëg jazaakum laahu xayran yal na yàlla fay leen dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran